salaamaaleykum amis téléspectateurs Equivox TV dal leen ak jàmm tey ma am contentement dalal ki nga xamante ni moo di Assane Lo ñu ngi koy gis ci série yi nga xamante ni tarkal la nee naa la moo yëngal jamono actuellement Assane Lo doon nit koo xamante ni Sénégal dañu koy gis muy zappe tey ñu war a waxtaan ak moom ubbi débat bu yaatoo yaatu grand Assane maa ngi lay siyaar. Barak maa ngi lay siyaar di am mbégte. Mhm. di recevoir Equivox. Mhm. yow moom comme <laughs> sama nga waay nga. Mhm. waaw lu munul ñàkk man daal maa ngi ci biir ko Euh, naka naka ngay nuyoo sénégalais yi euh, ci euh, période bi nga xamante ni climat bi mi ngi baax et ñu ngi dugg ci Saint-Valentin. waa non xanaa waaw waa dafa tombé nag. parce que mais c'est pitié que dama yërëm célibataire <laughs> parce que xam nga li ci grave yi seen heure dafa wàññeeku parce que njiitu réew mi dafa def ñëpp léegi ay yambar. ok vingt heures ñëpp dugg seen kër lafu. kon Saint-Valentin wu ak célibataire yi. Mhm. moi je pense que dina métti ci ñoom trop. dina métti ci ñoom <laughs> grand pour ñu commencer sunu sunu sunu interview grand ñu lay gis euh, ci ci ci série euh, qu'est-ce qui fait la différence entre euh, Tandian et Assane Lo. différence entre Tandian ak Assane Lo yomb na. Mhm. pour ñi ma xam je pense que ñoom jarul sama lay expliquer. Mhm. mais ñi nga xamante ni xamuñu ma différence entre Tandian ak Assane dafa mel ni nga ne. Euh, la journée ak la nuit. Mm -hmm. Lo, il n'est pas comme Tandian. Mm -hmm. Tandian, il n'est pas comme Hassan Lo. Mm -hmm. Et gën a gàtt rek mooy Hassan Lo du prisonnier. loolu <laughs> euh, nga bëgg wax foofu Hassan Lo du prisonnier. waaw mooy que non kii dafa nekk en prison dafa def délit. Mm-hmm. nekk prison. Mm-hmm. donc man comme comme on dit je touche du bois. Mm-hmm. dalu la ok grand ñu gis ni euh, yaa ngi ci milieu bi et que ni beaucoup de jeunes. ñi ngi rêver pour mel ni yow on te voit tu sais bien et que ni euh, loo xamante ni maa ngi koy wax sama sama sama copain moo du xoolee keroog ma ko damaa dugg ci ci ci ot ci car rapide laa dugg dégg ñaari xale yu jigéen di waxtaan naan Tandian day day day sañse dafa bëgg jigéen grand bëgg jigéen googu nga chaque instant koo taseel ñu naan Tandian dafa bëgg femme dafa bëgg femme est-ce que loolu rôle boo xamante ni ci yow nekk wala gars yi dañ la koy wax rek pour pour pour pour pour salir sa peau. waaw mais je pense que budul woon loolu. Mhm. nit ñi duñu xam ok bu du woon loolu nit ñi du ñu xam Tanja. ok cest la différence entre li tax ñuy ràññee Tanja. Mhm. mooy dafa bëgg jigéen. ok te te te te encore une fois dama ne woon loolu du ma ci débattre parce que wax naa ko waxati ko quoi. voilà mhm. vraiment bëgg jigéen moom. moi je pense que boo boo ko waxee mi ngi mel ni tey man duma ma toog ci der di xas yàpp. ok. Mhm. góor gu ne léng toujours ma wax ko wér naanoo ay reen dara dalu la boo bëggul jigéen looy bëgg. waaw boo bëggul jigéen ñu laaj la ko. yow de bu fekkee da ngay bëgg góor de yow nga wax nit ñi góor. <laughs> góor day bëgg jigéen day. mais mais mais wax waxin la li li nga wax dëgg la. mais par exemple tey rôle yi ñuy joxe yëpp ah booy xool koo gis ci jox jigéen day ak li nga xamante ni par exemple bu ñu la joxee rôle boobu que ci rôle nga xamante ni moom nga nekk di dund. Ah, mais non écoute xam nga artiste. Hmm. exemple quand tu te dis que moi je suis mm-hmm. rôle bu ñu la ko joxee nga joué ko génn ci mbedd mi jaawar la wuñ la ak li ngay joué rek parce que réussiroo ko. ok tey ma jox leen tey benn benn exemple rek Sénégal ñëpp xam nañ ko. ana hmm. Azulobo. oui normal. ok sama gaañ la. Mhm. Baye Fall dëgg la. Mhm. man may wax yow xam naa ko bu baax Azulobo. Mhm. mais dafa joué rôle boo xam daf ko topp sonal ko. parce que dafa réussir rôle boobu. tey nga gis tey exemple ma jox la ci idole am na ci kenn ku tudd x mhm. est-ce que dafa muumu mhm. x muumawul ok et pourtant ñëpp am na ñoo xam ñi ngi dox naan est-ce que x muumawul mhm. parce que dafa réussir rôlam je pense que loolu du debaa góor bu bëggee jigéen du débat dafa mel ni rek nga ne euh, nag bi am na soow. c'est normal. <laughs> nag bi am na soow. mais c'est normal ah, loolu loolu loolu d'accord naa ci ak yow mais ci jamono bi nga xamante ni acteurs yi bëri nañ trop ah. Mm-hmm. et mënut a xàmmee le vrai acteur. Mm-hmm. lan mooy def différence bi quest qui fait la différence. waa écoute euh, loolu mouvance la bu am. Mm-hmm. c'est normal. ok peut-être que yéen. année yi yéen yéen yéen ça fait seen génération mm-hmm. da ngeen tombeek sax audiovisuel bi dox mm-hmm. technologie bi avancé trop mm-hmm. lépp luy xew du yàggati léegi moo tax buy xew day xewaat ok que seen jamono li mu tombel la dafa yomb tey jii booy xool tey exemple Sénégal siiw fi nekkatul buzz nit xëy na def lu bon siiw def lu baax siiw. ok mhm. siiw bi c'est éphémère yàggatul. Mhm. par rapport ak ñun ñi nga xam ne dañ naan seetaan tey waa Daaray Kocc waa jamonoy tey ku mel ni Moustapha Diop ku mel ni tey Kalso euh, ma mii mooy joué Pape Demba. Mhm. ak yeneen ñoom Makhoury Diagne ñoom Baye Pël. ñu fekkiwul leen yéen seeni temps ñuy joué théâtre mais ñooñu seen i siiw da dafa leen topp ba ni ñu ba ñenn ñi génn àdduna. mais ñun suñu siiw jamono ji métteetul moo tax mouvance la rek day xew. kii lay tourné kii tourné kii tourné kii tourné am na ñoo xam ñi ngi toj réseaux sociaux yi mhm. ñii ñi ngi toj télé yi mhm. ñii ñi ngi toj seen koñ yi ñu dëkk mhm. ñii ñi ngi toj seen kër yi ñu dëkk ñii ruq yi ñu dëkk donc euh, histoire la boo xam l'essentiel ñi ci dem nañ ci def molo molo rek mais euh, yaa ngi tudd ay kilifa yoo xamante ne dañoo nekkoon ci milieu bi ñu ci bari génn àdduna ñu leen di ñaanal fañ tëdd yàlla na leen gënal fi ñu jóge amiin euh, yaa ngi wax ñooñu mais est-ce que ñoom fi ñu doon yóbbu aar bi est-ce que la nouvelle génération ñu ngi fay yóbbu aar bi parce que dañ koy def ak fulla def ko ak maturité def ko ci noo xamante ni day yee la la la la jeunesse. bokkul nag quand il faut le mm-hmm. ah parce que bokkul dafa mel ni nga ne yàlla ak yàlli quoi. Mm-hmm. ñoom seen jamono dañ doon def ay thématique mm-hmm. di éduquer nit ñi. seen i théâtre lu ñu jouer éducation la. pour ñun ñi la woon. dañ daan joué yoo xamante ni lii xew ci kër yi mais ñun suñu jamono nag ah, ak yéen ñi xam ñoo tombeek génération ñu bokk ko. Mhm. jamono day dox. Mhm. jamono day dox bu njëkk ba ay puudaru moo amoon. Mhm. jël benn euh, nu mu tudd doomu daal puudaru nga ree nit ñi ree. Mhm. mais léegi nag ay make bi boole ko ko aussi tamit dangay gis koo xam ne si dañ koy make up ba da nga yaakaar dañ koo jam paaka jamuñu ko paaka. Mhm. différence bu rëy am na. ñee éducation la woon dañ doon éduquer des gens. fii nag dañuy def pour am mais est-ce que loolu mooy euh, est-ce que loolu mooy euh, solos li nga xamante ni maanaam moo di cinéma. cinéma nag. ni ko nit ñi di jële a ah. c'est pas parce que rek cinéma dafa war a éduquer ah mm-hmm. film tubaab bi amul éducation ah. mm-hmm. te ñu ngi koy seetaan mm-hmm. ay bombe lacrymogène ay guerre tel tel ba film ba jeex ah mais est-ce est euh, yaa ngi wax lu am solo est-ce que ñoo bokk culture mais non du problème mu culture parce que bu ñu duggee ci culture daanu. xam nga lu tax. Uh-huh. parce que mixage am na ak brassage ñun ak tubaab yi dañoo mixé wu léegi. ok ñun ñoo raw sax tubaab yi. man damay xale yu jigéen ñi wala góor ñi koo ci waxal bu wañaaroo wesh weshi nga nekk mais <laughs> yow tu sais très bien <laughs> li may wax. est-ce que est-ce que du est-ce que du yéen loolu ci yéen lañ ko gisee maanaam yéen acteurs yi nga xamante ni yéen a nekk au devant de la scène. mais au la am rôle la. Mm-hmm. mais ki connaît Assane Lo xam ni moom doxul ci ay façon. Mm-hmm. je suis naturel. mais ñi nga xamante ni exemple seen génération dafa dem ba dañ leen xam nga gis nga lan moo leen sonal xale yu jigéen yeeg jantal yi nga xam ne ñi ngi ci génération bii nii nii nii nii. Mm-hmm. ñi leen di jaay ñoo leen sonal. ok parce que dafa tombé boo ci wañaaruwul defoo ay bagages bokkoo. Mhm. effectivement seen lool moo tax mu metti <laughs> yaay eh, daanaan eh, dafa tombeek génération boo xamante ni waxatuñ la jeunesse dëgg loolu nga wax tout à l'heure mhm. eh, ñu gis ni la musique sénégalaise Assane Lo ku tudd Assane Lo xam ni am na rapport ak ki nga xamante ni moo di Carlou D mhm. Assane Lo en dehors de Carlou D est-ce que am na yeneen rapport ak yeneen artistes yi nga xamante ni ñoo fi nekk muy la nouvelle génération on peut citer le cas de de de de Wally Seck et et ban rapport nga am ak yeneen artistes yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi bon écoute ñoom samay petit frère lañu hmm. rapport bu nice mhm. ku ci yam ci man tey eh grand frère ça mhm. dip ñëw na sama bureau. Mhm. seet si na ma dox nañu maak moom mu ànd ak xaw ñu waxtaan vraiment. Mhm. man apprécier aussi li mu def. ngaa ko aussi ñëw na sama bureau ma toog mu toog mu waxtaan maak moom. seet si na ma. yeneen Sidi defal naa ko ay ITV maak moom. ça va ñu ñu loolu ah. Wally aussi j'ai eu à bosser avec lui. ba tey euh, mi ngi am relation ak bu nice boo xamante ni si vraiment euh, dara ñaaw la. ok lan lan nga doon job ci ci Wally. ben Wally dama ko yoraloon euh, production ma. production waaw premier album am. ok ménage ko un yoral ko production am yoral ko communication am aussi. Mhm. ko road show lu bari affichage yeeg lépp. Ah. ok waaye pour. pour premier album premier album mais pourquoi divorce bi lu waral divorce bi. Eh, mais écoute euh, lu war a lu war a jeex day jeex. lu war a jeex day jeex. am na foo jógee ñëw naa yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen seen yaa ngi lay wër ngay bañ yow. gara xam naa loolu. gara wuy ma. oh gaa yi gaa yi lay ndax. déglu ma Equivox booy bi gaa yaa ngi koy. mercato bi dafa dox de. gara bi dafa day daw sama question wuy ma <laughs> gara. lu lu xam nga lu tëgg lu nekk day day tas. mais tey euh, euh, mënuñu wax musique. te tudduñu la euh, te tudduñu Wally Ballago Seck nga nekkoon ci mhm. ginnaawam. Mhm. joob ak moom ci premier at mhm. si je comprends bien. Euh, tey euh, ñàkkul ni am na loo xamante ni par exemple moom moo la fa jëlee. non mooy mooy li ma la wax. xam nga xam nga du du rayante wuñu. xeexuñu histoire ñu. dara ramu ci. benn moment la woon parce que c'était pas grand nañu liggéey à vie. non nañu liggéey ci benn moment mu jeex après ñu seet leneen. te noonu lañ ko demee parce que man moment boobu. euh, j'avais pas le temps di lancer wu trop ci musique ci musique sérieusement mm-hmm. boobu maa ngi woon trop focus ci liggéey bi ma liggéey parce que maa ngi ci agence de communication de publicité mm-hmm. te moment boobu ñun on gérait Orange mm-hmm. euh, ngeen baal ma ci publicité bi ah. ñun ñoo yoroon seen communication donc aw moon temps ok dama sax di daw di liggéeyal waale dëgg yàlla donc pare naa macha allah yàlla teg na ko ci yoon mi ngi dem dem naa seeti leneen est-ce que instant bi pare nga pour tendre la main à la nouvelle génération ñi nga xamante ñoo ñoo bëgg a am carrière musicale. Hmm, possible na mais ci kaw mu doon ku dëggu. Mhm. mu doon koo xam liggéey ko tax a jóg. Mhm. koo xamante ni aussi du woor. du woor waaw garaa nga dugg sama biir question bi nu la mhm. muy euh, milieu bi nga xamante ni moom lañ nekk muy milieu bise lu tax amuñu bàmmeelu biir lu tax sincérité manqué fa. waaw ah, parce que showbiz c'est pas du vrai c'est du top. c'est faux dañ ne show ok kon ñi nekk ci millier bi dañoo faux. showbiz du daara du daayra dañuy sóob c'est du show business. ok ay sóob maana fa ne il faut il faut incarner le faux pour avoir le vrai looloo nekk ci showbiz showbiz koo ci gis mu nekk ci mës nga gis nit retraité ci showbiz. amul amul ku am pension wu showbiz. Mhm. xam nga noo ciy génne. Mhm. xewatoo. dàq nañ la def nga tooxi doona tëj nañ la daw nga gedd nga seetlul bu baax li ma la ci showbiz. waaw perte nga jël ngay million jàmbur perte nga mënatoo takk nga ci àll bi. Mhm. ñi amoon tur ci showbiz yëpp déggatoo leen. ñi daan maye xaalis di baat rek di wañaaru gisatoo leen parce que <laughs> powum xaalis du yàgg. non li ma lay wax dama ci am expérience. Mhm. yàlla daf ma dimbali ma nekk ci showbiz ragal. le pourquoi. merci ragal bi du damaa ragal a affronter wala ragal a liggéey déedéet. Mhm. sama yaram dafa jomm yenn ci showbiz. Mhm. moo tax tey showbiz aw ma ci xaalis bu bari. Mhm. parce que la nit ñeme di def ci showbiz am ci xaalis boo xam danaan fàng pour quelque temps. non man tool toolaan di dundantu moo ma gënal dund wala dee. showbiz nag li ma lay wax c'est du vrai faux toog la. dañuy incarner le faux pour avoir le vrai. Mhm. ñii di gis gars yi ne ci showbiz ñuy taxaw ci télé bi chaque jour ñuy nice. Mhm. seetlul bu baax li ma lay wax. Mhm. du ñu génn mukk ci naaj. dañuy nelaw ba 16h 17h. poudre génn wañaaru taxaw góor ñi jigéen ñi. gars yi def ko mit di daw di yuuxu naan waaji waaji waaji. oto yi ñuy dawal genn wàll gi yëpp moomuñu ko. <coughs> ay business la. may tour nit la. may xaalis nit. mais ñi ci am xaalis bariwul. ok nga wax lu am solo et que lu pertinent. Euh, yéen ñi nga xamante ni par exemple yéen a nekk dans le milieu dañ ciy gis ñoo xamante ni dinañ dund ba dee maanaam ci ndimbal la ñuy dundee maanaam euh, amuñu amuñu amuñu koom boo xamante ni bu tax ñuy wax la amuñu kër est-ce que nekkul ni bi ñuy nekk ci milieu bi dañ doon foo ba ba fàtte loo xamante ni par exemple ni kër war na leen euh, soxna war na leen wala aussi war nañ yor seen njaboot ëllëg. non fàtte wuñ ko de dañ ko amul. mais grand non bu ni ma dañ ko amul. waaw dañ ko amul dañuy nax nit ñi déggoo li ma la c'est-à-dire nit ñi nañu moytu boo décor bi ñuy gis ak sañse bi ñuy gis ci diw ci showbiz seetlul bu baax li ma lay wax lit vocal yi nekk ci waykat yi dong ñooy am kër normal ña des ñëpp dañuy toltolaan képp ko gis mu topp waykat mhm. waykat mhm. nga topp ko di tëll rek pour am tour ci moom. Mhm. moom dina am xaalis bala fa. Mhm. te suqam ngay nekk. Mhm. doo am dërëm. te looloo fi ne. damay ànd ak diw damay ànd ak Abdou Saliou jege Abdou Saliou waaw pour nit ñi gis la ak Abdou Saliou noo ngay dox di ñëw loolu nan la mën a fondee kër bëgg nañ ko de dañ koo amul parce que showbiz moo amul xaalis. rak li ma lay wax du du du du ay caaxaan. mais est-ce que est-ce que jotul tamit ngeen ngeen ngeen wan la nouvelle génération bi nga xamante ni tey dañuy jël exemple ci yow jël exemple ci ku mel ni keneen ak keneen genre karu yi nga xamante ni ñoo ñoom nit ñi dañ leen di dañ leen di gis est-ce que jotul ngeen wax la nouvelle génération qu'est-ce qui c'est qu'est-ce qui est réellement milieu bi nga xamante ni ci lañ bëgg di dugg. parce que jeune bu ci nekk mi ngi mi ngi rêvé mel ni Assane Lo zappé comme toi ni ngay zappé génn ci télé yi def ay publicité genre yu mel noonu. waaw non bokk ku roy ci man. booy roy ci man bul seet li may def peut-être c'est bien nag parce que aussi nit booy roy ci moom da xool ci lu baax li muy def. Mm-hmm. man publicité yi may def c'est normal. Mm-hmm. série yi may def aar bi dafa nekk man ma di ko def ñu may jël. Mm-hmm. mais topp ma nit pour ne ko jël ma ma siiw. topp ma nit ne ko siiwal ma mais bul ma fay. déedéet ñoom ñoo may soxla woo ma. ak gëm gi ma gëm sama bopp aussi. Ah. c'est-à-dire que tamit loolu c'est très important. Mhm. génération bii ñuy nag ñoom su fekkee ne dafa am ñu ma ciy roy. Mhm. roy ma ci gëm sa bopp fulla fayda moytu. Mhm. ak set selal. dëgg fa neex yàlla. loolu moom boo ko defee moom suñu borom dina la dimbali. waaw. le rapport entre Assane Lo et job bi nga xamante ni mi ngi koy liggéey ak Carlou di euh, Assane Lo lan lay lan lay liggéey ci staff Carlou. Assane loolu li muy liggéey ci safu Carlou euh, man sama liggéey ak Carlou dafay varier mhm. au début ak Carlou ak fii ma toll nii ak Carlou job bi ba tey waaw début bi ni ma commencé du noonu laa nekk Carlou nii nii nii mhm. man Carlou aw ma ci moom limite mhm. tey mën naa ko manager suba mën naa ko def nii mën naa def nii mën naa def nii mën naa def nii Carlou mënumal ni lii mooy fixe bi mais jàppal ne rek lépp luy direction artistique am Mhm. c'est quoi le rôle. role direction artistique mooy. Mhm. tey Carlou euh, communication am. Mhm. bi muy dem nga dem xool. décor décor yi. sañ sañse bi muy sañse. ak yi nga xamante ni aussi fi muy toog yow yaay maanaam tout ce qui touche euh, euh, ci art. nga xam day xew ci moom ci lu ñu nekk ci milieu bi. yow yaa koy gérer. ok Carlou dem na ba sax jox ma sax loo xamante ni. du sax sama liggéey ci moom quoi. Mhm. day jékki-jékki sax ñëw sant la dara wala mu dégg la dara wala mu woo wax la dara. Mhm. nga def ko parce que moom laa lay wax rek aw ma frontière aw ma ci moom <laughs> aw ma aw ma limite ci moom. gara baal sa daxaate yi laa la wax. non du naxaate li ma lay wax kay yow dund nga ko Abdou Saliou. jo yow dund nga loolu. <laughs> yow dund nga sama diggante karlo gis nga comment ça se passe. Mhm. ñëw nga kër Carlou gis nga ma biir këram. Mhm. ak njabootam. Mhm. gis nga relation ma ma karlo dem naa ba man sama diggante Carlou nekkatul dañuy liggéey maak moom. mais entre grand frère petit frère. Carlou c'est mon petit frère. grand depuis depuis combien de temps yaa ngi ki milieu bi di di di di def cinéma. Ah, yàgg na tuuti ah bizarre ah na fi ah parce que j'ai tourné des séries. tourné naa ay. Euh, def naa cinéma aussi. Mhm. tourné naa mhm. naa loo xam daw na ci chaîne télévision yu mag yi. Mhm. yàgg naa franchement yàgg naa. mas na am titre boo xamante ni euh, cinéma moo la ko jox. am naa ko ci idole am naa ko ci idole am naa ko ci aussi euh, ci double vie. double i je rappelle yaa ngi ci double vie. waaye Pape grand da nga yàgg. Pape Cheikh sama <laughs> sama grand. jamono doy waar trop. Mhm. Euh, il nous faut quel type de personne pour mën a euh, changer le monde. ñun ñii fi Sénégal. Sénégal et en dehors de Sénégal. type de personne fii Sénégal non monde bi moom du ma jox fii Sénégal laa Sénégal wax fii type de personne Sénégal. <laughs> Mhm. mooy ñun rek ku mel ni ñun. non ni Sénégalais yi mel. non defal ndànk ni Sénégalais yi mel mënut a changer le monde grand. non ñun changé wuñu monde de Sénégal. non waa Sénégal mënut a changé Sénégal ni Sénégalais mel. ah mais voilà kon noonu la ñuy doxee rek. Sénégal non man gannaaw tey tey bu may waxtaan ak yow. Uh-huh. dama bëgg ki euh, xale bi nga xamante ni daf lay seetaan xale bi nga xamante ni par exemple euh, war na am tuuti notion ci li nga xamante ni moo di cinéma war na am loo xamante ni tey ji war ko mën a jariñ ci réew bu déggee Assane Lo dina xam ni carrément kat ah il me faut ça pour changer le Sénégal. waaw pour changer le Sénégal ci domaine artistique ngay wax. ci côté yëpp grand. waaw man nag xam nga nag je suis pas euh, ci côté état du ma ci dugg parce que. Mhm. man xam nga maîtriser wu ma état. Mhm. côté football aussi football naa nawet ay nawetaan ak ay koñ nii. Mhm. mais xaw ma nu fédération di doxee. mais bu dee wàllu cinéma nag moom. ci li ma nekk mën naa ci wax. allez-y li koy changé mooy. producteurs yi respecter les acteurs. di leen fay normal. acteurs yi gëm seen bopp. te mhm. xam ne ñoom ñooy patron wu producteurs yi mhm. parce que bu dul ñoom producteur du fayeku mhm. xale yi gëm seen bopp bañ a jaayu bañ a jaay seen bopp pour jouer pour siiw jaru ko góor ñi aussi ñu nekk ay Baay Faal réel tourné li ñuy tourné aussi xam ni lii dañ ko war a lekk ñu lekk ko war ñu dem tamit di cogg di topp ci ay nit déedéet gëm sa bopp buñ ko defee moom côté monde cinématographique bi day sori est-ce que du nekkul euh, ni euh, tentation yu nekk ci millier bi moo tax Euh, xale yi amatuñu valeur maanaam euh, dañu manqué dignité. non xale yi am nañu dignité mais seulement dafa dafa foorul ci ñoom trop. Mhm. dañoo xamul lan la dignité di tekki. Mhm. man je pense que dañoo rate la base. Mhm. raté la base mooy raté wuñu éducation parce que ku ci nekk dañu la éduquer. dëgg yàlla. mais xamuñu valeuru dignité ñun dignité buñ ko doon def ci ñun dañu daan dóor. sa professeur bu musaana romb nga séen ko da ngay làqatu mhm. sa yaay bu la xoolee ci bët nga xam li mu wax li mu bëgg a wax mhm. mais nag léegi valeur boobu nga xam ñun dañ koo xamoon ci dignité mhm. ak respect mag xale yi xamuñu lu muy tekki moo tax dañ koy fawee loolu rek ay seen problème mais est-ce que jotul ngeen def ko ci ñoom tamit grand parce que Assane Lo Assane Lo père de famille nga tey am na ci loo xamante ni tey jii boo gisee euh, une je un jeune di di doxe yu mel noonu war nga ko mën a woo ah kat diw sama rakk nga wala peut-être sama doom nga tey li yëg li yëg lii moo am ci milieu bi éviter teg sa tànk fii. parce que grand am na affaire yoo xamante ni buñ ko nëbbatalee booy yi mën nañ dem ba fe ba ba ñoom dañuy sànku. waa non man nag yàlla dogal na ne yoruma baguette magique. Mhm. yàlla dogal na ne euh, yedd kenn kon ma yedd sama mais suñu borom may na la xam-xam boo def bu mu def ci yow boo xamante ni boo xek ni dina la dégg waaw ci kaw boo ma ñëwee laaj ma parce que ñun ay jamono mhm. sama doom mhm. Papa Diop daka daan jàpp dóor mhm. bu ñëwee sama kër ma dóor waaye léegi jamono ji sama doom bu ma ko sa doom bu ma ko dóor nga yóbbu ma police kon mënatuma loolu nekkuma fi aussi tamit man duma per Père Noël du ma imaamu réew mi du ma naayimu réew mi man du ma xutba du ma du ma prophète ba tax ku rom maan ko kaay ma ñaanal la kaay ma yedd la booy bàyyi ma. <laughs> grand samay doom dong doy na. grand waxuma la non defal ndànk de noo wa gis nga jamono ji ku ci bëgg nu gis nga boo fi nekkee di wër di yedd nit ñi barki yonent bi doo gis ni dañ lay daw. sa loxo bi kurpañ bi nga manqué nii téye ko de xam naa. ah non boo kurpañee danaa fay de. Sénégal moom moo moo toll foofu. <laughs> Mhm. Sénégal. tey jii su ma jugoon di wax lu baax. Mhm. ñëpp mere ma. ok mu jugoon di wax lu bon ñëpp def ma champion. Mhm. parce que ni dëkk bi doxee la léegi. Mhm. les gens amatuñu amatuñu amatuñu léegi euh, orma ak yu bari. mais tey jeune bu ñëw ne ma grande dama bëgg ñu liggéey. ma jox la conseil. ok def nga ko. dëgg yàlla du

pour ñu devenir des acteurs comme vous. waaw man nag je je je je pense que samay projet. Mhm. école euh, bokk na ci mhm. mais nag dañoo toll foo xamante ni euh, école bi nga bëgg ubbi soo amul lu la accompagner parce que nous tous aussi. Mhm. dañoo nekk ci kuppalu ministre de la culture. ok donc ministère bi tey. su deful loolu. à notre place. ñun gëw mu ñu def ko. parce que aussi ñun benn loxo rek la ñuy doon. mais ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu naan bàyyi leen jàpp leen. Mhm. monter leen seere leen. Mhm. ñoom bu ñu accompagner rek. Mhm. école yu bari mun nañ ko ubbi macha allah. mais est-ce que yéen a ngi jaar foo xamante ni tey dinañ leen mën a accompagner. def nañ lu ne. gars yi ngi def lu ne. aar bi depuis 60 ba léegi Sénégal. toujours day soxe doxagul ba léegi day raam. doxagul ba léegi day raam peut-être génération bi sax ñu ngi koy indiwaat ak xam nga yéen a ngi nii di jug. nekk ci audiovisuel. di daw di filmer. di defar ay série ku ci ne toog sa kër di bind mhm. di rey temps mhm. di am weccit mhm. mais ba tey amul kenn ku ci ministère de la culture reconnaître ba accompagner la ok kon ubbi école day jafe ñu gis maison de production yu bari loola ah, série yu bari mais qualité bi dafa des maanaam euh, ñam bi am amul cas quoi dañuy dañuy jouer nii pour jouer rek wala jouer nañ pour bëgg a feeñ wala maa fi nekk maison de production maa def lii maa def la waaw parce que li indi loolu leen rek la mooy dañ cee rax compétition. Mhm. sooy tourner dara ngay def dara da nga ciy wut qualité quand tu as des bons acteurs. Mhm. bon scénario. Mm-hmm. communication. mm réussite. Mhm. mais soo jugee tey ma demb gis la tey ngay tourner. mu ne ah daw ne grand bi wutal ma benn caméra waaye mu moom it créé groupe am di tourner keneen di tourner keneen di tourner. Mhm. compétition la du ñu am qualité bu baax. Mhm. toujours loolu rek lay jur. ok booy xool Sénégal euh, Nollywood ñan ñoo ko moom. Mhm. Euh, Bollywood ñan ñoo ko moom. indien yi xaw ma. ak yeneen ak yeneen. Sénégal lu ñu am. <laughs> yow laa koy laaj yow laa koy laaj yow yaa ñu koy wax. mais non parce que parce que du ci man. man su doon sama sago. waxuma la Nollywood sax mais lu raw Nollywood dinañ ko am. mais li raw Nollywood di ngeen ko am mais est-ce que xol yi ànd nañ déjà. mais Sénégal xol du fi mës a ànd parce que li tax xol du fi mës ànd yéen booy bàyyi leen gis nga mag ñi dañuy wax naan ku jaaxaan bi saw sa bopp ngay tooyal. <laughs> sénégalais yi ñooy toog juróom. Mhm. wala fukk di waxtaan. Mhm. ku ci nekk ngi dóoru moroomam de. te naan yàlla baax na yàlla ba mu baaxee kenn judduwul nañu liggéey te bàyyi caaxaan yi ñu nekkee. sénégalais boo gis muy dox boo di wax ak moom danaan la ëppoo ma xel Sénégal ku fi jaay xel day lamb parce que koo wax mu ne la gënuma muus. pourtant nag kër yi foo sa kër yi ngay gis ci ndakaaru geeg Sénégal gi yëpp mais kër gu dugg am na ko fu ma sa jël ndaare ak ko fu ma sa koo wax mu ne la man sama jamono ba ma ci tolle mhm. dëgg la. non nañ bàyyi naxante yi. Mhm. pour terminer Assane loolu lan la mës a dund loo xamante ni tout le temps loolu day ñëw ci xelam mu marqué ko ko mais grand euh, pour terminer euh, euh, lan nga mës a dund sa life loo xamante ni tey jii heure boo toogee mu nekkaat sa bopp. mu nekk sama bopp ci lu baax ci lu métti. ci lu neex que ci lu naqare ci ci lu baax que ci lu bon. waaw man nag li ma li ma li may li ma li ma métti je pense est-ce que bari na. Mhm. nit laa nag dama yëg métit nag. Mhm. mais dama ko dul jël trop di ko yem. Mhm. dëgg yàlla parce que nit kuy dund di nga am bés mhm. di am lu la neex mhm. di am lu la métti mhm. mais li ma métti bari na génn àdduna alajab du métti na ma sëriñ Saaliw sëñ Murtala Mbàkke sama sëriñ waaw yooyu ndeysaan kilifa yooyu nga xam amatul ci jamono daf may métti parce que ñooy suñu ndimbal loolu mu métti na ma lool ah aussi sama xarit yi génn àdduna yi nga xam dañ daan nekk nii ñu xëy suba rek ma mar détail yàlla jël leen mhm. métti na mhm. aussi nga xam nit nii mu xëy suba feebar tëdd mënul jug dafa metti mhm. yooyu yëpp ci métit la mais yàlla la nag quand même ah. parce que aussi moo ñu fi indi te li may faral di wax concours lu bon dafa jeex léegi lu bon xewatul lu baax moo xew parce dinañ dem ba jëmmi jamono te commencé na. Mhm. di nga woo nit sax pour di ko defal lu baax mën na la doy na. Mhm. parce que may damay wër damay wër nit pour defal lu baax dëgg la kon lu bon xewi na. Mhm. donc li ma neex nag mooy li nga def nii daf ma neex. parce que dañoo bokk jotaay. ma gis la nga déparé lu neex. tey nga xëy ba def lii. daf may neex parce que boo bokk na ci li ma neex parce que da nga gëm sa bopp. bokk na ci li ma neex nag sama njaboot. Mhm. samay waa kër sama soxna. Mhm. samay xarit mooy fii ma fekk. madame Lo ma koy nuyu de passage. waaw euh, jigéen ju mën góor. ah non kii moo mën góor moo mën jigéen. <laughs> <laughs> donc ak yeneen ak yeneen. Mhm. yoo xam du ma ko mën a wax. daf may neex ma xëy di yem samay collègues yi. ñu sourire. ku mel ni Ndumbe tey exemple. ah vraiment. Euh, mu sourire vraiment. daf may neex. daf may neex ma tourné gars yi di am mbégte. àdduna bi dox. wallaay al azim daf may neex. le moo de la fin grand Assane. waaw le mot de la fin mooy euh, di sant équipe. Mhm. Equivox. Mhm. di leen wax na leen lii boo leen ko jàppee boo leen ko bàyyiwul waxuma la dina leen dégg bu sori te day am incha allah. incha allah rabbi amin amin grand. di ziar sénégalais yëpp. Mhm. di baalu ñëpp ak. te di baal ñëpp ak. nee naa la nii lay demee bés bu nekk Abdou Saliou la woon ak Assane di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm di ñaan bas mi nga xamante ni moo di corona yàlla na ko fi suñu borom jëlee ci barke Serigne Saliou kooku nga xamante ni moo di sama sang boob borom njurul borom jàppandal borom dooka borom jawaan nga xëy ga sangub Cheikh Béthio Thioune bàyyi Serigne Cheikh Saliou waaye di nuyu sama jigéen gi nga xamante ni tarkalla ma nga ca diwaalu Italie kooku moo di Mimi Badji Badji Bassène yàlla na sa jàmm yàgg sama yaay booy maa ngi lay siyaar bu baax a baax ma